beaucoup président Habib Sy puisqu'il a introduit en français je vais moi m'exprimer en wolof parce que nag jamono day toll foo xam ne waxtaan ak askan dafay war dafay jot pour que nul n'en ignore Habib Sy fàttali ni léegi ne depuis sa matin réew mi ak ndakaaru ñu ngi dund ci jalt-jalt ay bàyyil ak taqale yoo xam ne kenn xamul lan mooy solo bi li ko wunda mooy régime boo xam ne saa yu jaaxle saa yu tiitee saa yu ñàkkee pexe benn usage rek lay def jël état bi à travers ñi nga xam ni ñoom lañu dénk yenn fonction mu dóor ko ci ay citoyen xam ngeen ni bi ñu xëyee tey gunge ànd ak Barthélemy Diaz moo ñu taxoon jóg parce que dañ ko convoqué ci procès boo xam ni na ko ñëpp a xam fukki at a ngi nii fukki at xam nga procès bu duré fukki at moom xam ngeen ni du loo xam ne lu normalati la kenn daan mënatu ko justifier ñu woo ko ci au moment où il est investi candidat à la mairie de Dakar ñii naan convocation bi tombé la mais du loo xam ni c'est pas pensé ma waxoon leen keroog bi ñu tasee fii ma ni leen dans toutes les démocraties ki se respectent am na foo xam ni su fa vie démocratique bi tolloo institution bi nga xam ni mooy justice ci réew yooyu dafay am loo xam ni da koy rus def da koy tere boppam da ko dul nangu parce que c'est un problème de décence et de responsabilité justice du nangu ñu di ko jël di ko door ci kaw ay candidats pour di influer sur le cours de, du combat démocratique malheureusement pour nous certains de nos juges n'acceptent pas ou ne connaissent pas cette règle de responsabilité et de dignité ñu gunge Barthélémy Diaz ñu renvoyer procès bi ñuy dox ñoom di dem tribunal ñu dogale leen dogale boo xam ne yéen ñëpp seetlu ngeen ko seetaan ngeen ko ci réseau yi bëgg leen néewal doole bëgg leen tuutal bëgg leen toroxal au de jeune ne sais quoi ñuy góor di góor ñu bañ jàmmaarloo bi ñu jàmmaarlooyee ba egg ci situation bi nga xam ni yéen ñëpp vivre ngeen ko ci la ñu dem ñun man ak président Déthié Fall pour trouver une solution qui permette à no démocratie de respirer parce que jàmmaarloo mooy li mujj mais su mënul ñàkk moom on en use mais su ñu mënee am solution aussi dañ ko doxal ñu dem wax ak ñëpp wax ak Bart ak Déthié ak malik wax ak force de l'ordre yi ñu trouver solution que ni daañu bàyyi Bart ñoom ñu ñibbi seen kër pour que mbooloo mi ak coow li juboon parce que gis ngeen mbooloo mi génn tey maara tey taali macha allah. ñooñu suñ leen bàyyee ñu jàmmaarloo ñum dana metti ñu seral fexe ba ñoom Barth génn di njimbi ñu dem ba université élément BIP yi def forcing arrêté oto bi ñu jàmmaarloo fa xeex fa ñu yenu leen yóbbu ba ma demee ma wax kilifa yi ba ma dem commissaire central commissariat central dem seeti commissaire central ba pour gis ko pour wax ak moom mu teeroo teerooñoo ak melokaan boo xam ni duma ko nettali fii mais pour un haut fonctionnaire jëfinam rafetul jekkul warul on en prend acte parce que nag lu nekk ci nett lay mujj te rek li ci kanam rawuli bët tey tey la suba suba la ñu dem camp Abdou Diassé bi nga xam ni foofu la élément bipp yóbbu suñu camarades yi ñu teeru ñu teeru bu rafet parce que ku nekk da ngay dëgg waxtaan ak ñun waxtaan yuy rafet wax ñu lu dal suñu xel one n'est pas dupe on pas naïf mais lañ ñu wax ñoom à tous les niveaux biñ ma ko waxee muy ñëy seen kilifa yi gën a mag man ak Déthié ñu waxtaan ñu ni suñu nit ñi nañu ñibbi parce que liñ ñu waxoon mooy que ni bi ma nee leen mën mën naa leen yóbbu ñu nangul ma ko xaar loo ma fa une heure de temps ñu wàcc ni ma noonoo dañuy bañ lañu daloon sànq dal ñu ñu ànd di ñibbi ñu defaat cortège nit ñi génn bàyyi leen ñun ñu ñëw yóbbu leen ku nekk seen kër ngoon loolu la ñu kitanteeg ñoom ñu génn fekk nit ñi ci biti ñun leen dem leen ñibbi parce que autorité yi nekk fii jox nañ ñu ay engagement yu leer wax nañ ñu ñu leer ñëpp gis nañ ni ñun ñoo fa taxaw wax ni ñu ñibbi ba ñëpp dem ñun ñu soog a dem donc ñu ngi toogoon fii léegi xaar suñuy camarades yi fekk si ñu léegi la ñu ñoom seen bopp wax ma leen keneen suñu camarades yi ñoo notifié ni woo nañ leen notifié leen seen arrestation loolu muy lu bees du ay kàddu yu waroo du ay jëf yu ñu bett nag parce que ñiñ ko séqal xam nañ leen seen kàddu amul valeur mais xam nañ ni ñun lañ ko jegaaleel donc suñu camarade yooyu suñ leen notifié arrestation xam ngeen la ceey topp c'est le parquet qui devrait se saisir ou devrait être saisi ak la ca des ak la ca des la ca des loolu ca des nag lañ dul nangu loolu lañ dul fekke loolu lañ dul seetaan yàgg naa ci état lool defe naa ñi fi nekk ñu ci bari maa leen ci jiitu mais liy doole kilifa mooy kàddu doole kilifa mooy kàddu nit ki lu mu wax dakaa jëfe ñii nag séq naa ñoom gis naa ni lañuy ñuy waxe du la jëfe moo tax ñuy wax Sénégal ni leen que chacun prenne ses responsabilités bu ñu kenn wax ni waxuñu woon bu ñu kenn wax ni jéemuñu bu ñu kenn wax ni doxuñu ci subaak léegi noppaluwuñu ku ñu war waxal wax nañoo yow ku ñu war defal def nañoo yow mais la ruse et la malice ne peuvent pas passer elles ne peuvent pas prospérer parce que suñu yaakaaree ni parce qu'on nous a dit d'attendre et que nous sommes restés les bras croisés dañuy nax seen bopp moo tax j'invite les Sénégalaises et les Sénégalais la jeunesse de ce pays à se tenir debout pour que ñu xeex pour dëgëral suñu démocratie pour que ñu xeex pour que la parole publique ait un sens ñu xeex pour que nit ñi gore di gore parce que am na lu kenn dul nangu je pèse bien mon mot et j'assume ce que je dis mani j'invite au nom de la coalition Yewwi Askan Wi les Sénégalaises et les Sénégalais la jeunesse sénégalaise et les femmes sénégalaises à se lever pour protéger la démocratie protéger la démocratie c'est se battre pour que ces camarades là ñu bañ leen nasaxal pour que ces camarades là retrouvent leur liberté parce que li fi am tey jarul kaso jarul arrestation jarul inculpation au contraire des camarades ont été malmenés des camarades ont été blessés Malick Gakou a été agressé Barthélémy a été agressé Ousmane Sonko a été agressé physiquement loolu kenn du ko nangu moo tax maa ngi woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw nañu génn nañu dem xeex ngir suñu camarades yooyu ñu bañ leen nasaxal bu ñu nangu ñu yóbbu leen kaso bu ñu nangu ñu tuuma teg leen duuma yu xam ne amul bu ñu nangu suñu démocratie ñu di ko nasaxal il faut que ñun ñëpp ñu xam loolu parce que li ma waxoon keroog a ci ne ñii dañuy màtt di ëf ay ndaw ruuraan lañu ay ndaw ruuraan lañu suñu amee dara nga bàyyi rek dañuy wutaat leneen bu ñu leen bàyyi ñu weesu fii ñu toll nañu jàmmaarloog ñoom nañu xeex ak ñoom parce que nag luy jot dafa jot te loo xam ni dafa doy dafa ëpp parce que lu ëpp tuuru voilà ce que je voulais dire au nom de Yewwi Askan Wi j'invite tous les camarades à la mobilisation j'invite tous les camarades à la résistance faut qu'on fasse face faut pas que ñu nangu ñuy nasaxal suñuy camarades je vous remercie Merci, merci beaucoup. Je pense que le président Khalifa Ababa Karsal a dit l'essentiel. Parce